fi lay jóge di taas di dem fu ne leer gi fi lay jóge di taas di dem fu ne anoo ngi ni di siyaare kan jàlla nangul na ko anoo ngi ni di siyaare kan jàlla nangul ñu ko anoo ngi ni ne di tas di dem lay sant kaan yaa ngi fu a ngi lay lay sant kaan yaa ngi fu

leer gi fi lay di taas di dem fu ne mbokk yi sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah nee na mi ngi leen di sant bu baax nee na moo ngi bég lool ci recevoir gi nga xam ne njëkk leen ko recevoir ci waajtaayu màggal gi jiitu gi ngeen fi jiitu daayira yëpp waaye nee na lool jaadu na ndax ku tudd xidmatu saalixiin Pastef rek nga war di amee jamono ju ne nee na loolu feeñ na ci seenu doxin nee na mi ngi leen di masawu itam ci oto yi ngeen jëloon biis bi ngeen jëloon te mu wàcce leen fële ca kaw tali xeetu jëfin woowee mu def na ngeen ko ko jéggal te bañ ko caa topp dara te xam ne kenn ku ne li nga war a am ci màggal gi loolu rek ngay jëfee sant na leen bu baax neen taxawaay bi rafet na lool nee na mi ngi leen di wax ngeen dal ak jàmm dal ak jàmm te lépp ànd ak tawféex ci barkeb Serigne Saliou yàlla nan màggal ak jàmm fekk lépp ci jàmm ci barkeb Serigne Saliou nee na loolu la waxoon ne na leen ko leeral fi yeewoon daaw ci ay nag. ndax la fi yeewoon daaw ci ay nag. ak li fi ren ci ay nag. ak li fi ren ci ay nag. wuute na lool. wuute na lool. wuute na lool. wuute na lool. gileem gi ci rax sax. gileem gi ci rax sax. amul woon daaw nag yi nag yi yokkute gi yokkute gi. foo ko takk weesu na. loolu nag. loolu nag. ak cant rek la. ak ndax. fédération bu toll nii. fédération nii. su ma amee cant gu toll ni su amee cant gu toll a jënd fukki nag ak juróom-ñeent mën a jënd fukki nag juróom-ñeent muy chiffre 19 fukki xar juróom-ñeent muy chiffre 19 mu yokk ci gileem loolu ak yokkute mënu ko te fii toog di wax nii te fii mu moom ndax dafa yebal turandoom muy Serigne Saliou Gueye mii muy Serigne Saliou Gueye mii lim bi yokk dem ci ñaar fukki nag muy sëñ Saliou mii toog muy sëñ toog nga xam ne këram ca nga xam ne këram ca Mbuur mooy sama wàccuwaay foofee mooy wàccuwaayam ca Grand Mbour loola loola yëmu yëmu ca nee na ma moom sëñ Saliou mii nee na ma moom sëñ Saliou mii man dama ameel Serigne moom dafa ameel sëriñ Saliou aw nag aw nag giirug dundam dundam mu ne ma su ma génnoon àddina. mu ne su génnoon àdduna. yàlla na yeex. nee na ma nee na ma. sama njaboot sama njaboot. sant naa leen sant naa leen. ñu koy joxeel nagu Serigne Saliou. ñu koy joxeel nagu Serigne Saliou. ba keroog muy dajeeg Serigne Saliou. moo tax mu ko ren. moo tax mu ne ko ren. yónnee de. yónnee de. teewul teewul. Serigne Saliou yi jot ci nag wi. waaye. waaye. dimbali ma rek. dimbale ko rek. nga wàcceel ko sa nga wàcceel ko sa bopp. kon loolu. liggéey bii ngeen amee nii. liggéey bii ngeen amee nii. liggéey bu ko gën a kawe. liggéey bu ko gën a kawe. la amee la amee. kër Cheikh Ahmadul Badawi. kër Cheikh Ahmadul Badawi. Cheikh Ahmadul Badawi. Cheikh Ahmadul Badawi. bu Cheikh Mouhamadul Fadal. Mouham moom Serigne Cheikh Mouhamadul Fadal. université. université. de mouridisme. de mouridisme. la ko tuddee. la ko tuddee. ngir xam-xamam. ngir xam-xamam. kooke. kooke. moom mii moo yore léppam daanaka. moom mii moo yore léppam daanaka. moo tax ba ba léegi téléphone moo tax ba ba léegi téléphone am fayul. waaye mu ne ko rek. waaye mu ne ko rek. da indi nagu Serigne Saliou. da ngaa indi nagu Serigne Saliou. ah. waaw faaw nga toog tuuti rek. faaw nga toog tuuti rek. dajeeg Serigne Saliou rek. di ko gën a mën rek. di ko gën a mën rek. def ko ba doo xam ndeyjoor ak càmmoñ. def ko ba doo xàmmee ndeyjoor ak càmmoñ. loolu moom ma ma ma ma xamal ko. leelu moom mi ngi la koy xamal. ndax sëñ Modou Diagne mi nga xam ndax sëñ Modou Diagne mi nga xam ne ginnaaw yàlla ginnaaw yàlla porte bi porte bi moom la ko Serigne Saliou ubbiloo ci moom la ko Serigne Saliou ubbiloo mu ubbi ko mu ubbi ko mu dugg ci biir mu dugg ci biir fekk fa turandoom fekk fa turandoom tàbbi na ci biir xéewal tàbbi na ci ndax lépp a yaatu. kon maa ngi leen di seeral ni. nee na mi ngi leen di seedeel ni. bég naa ci yéen. bég na ci yéen lool. waaye bég na ci sëñ Saliou Guèye mii. te nagu sëñ Saliou wii de. te nagu sëñ Saliou wii de. moom daf koo dimbale. ndax ku la indil nagu sëñ Saliou. ndax ku la indil nagu sëñ Saliou. nee na la. nee na la yaa ngi liggéeyal sëñ Saliou. yaa ngi gisee. yaa ngi gisee sëñ Saliou. ndax ndax. dénk ka nga wóolu. kon dalal na sama xel. kon dalal na am xelam. ci ni ci ne rafetal na njortam rafetal na njortam ci ne lu jaar ci man lu jaar ci moom yegg ci sëriñ sëriñ loola dama caa nee na loolu da cee bég mu soññ ma mu soññ ko defal ma tawféex defal ko tawféex te loolu te loolu kanam rek la jëm kon boog dem leen ngeen dal kon nag nee na ngeen dem ta dal ta waaj yor yor bi ak seen mbooloo ak seen mbooloo ngeen daje yen ñëpp ñëw ci baas ànd ñoom yor yor ci dimanche ci suba ba yor yor bi jeex ngeen ànd ak tawféex ju rëy tawféexi Seex Saaliw ba déwén incha allah leer gi dem fu ne anoo ngi ne di siyaare